salaamaaleykum mbokk internet di ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ñu ñëw ak yéen ci xibaar yu mujj jëm ci tàggat yaram waaye laata loolee kuy gan ci pace bi te abonné go ñoo ngi lay ñaan nga abonné bés kolos bi nga xam ne lu ñu dugg rek di nga bokk ci ñi koy njëkk a jot ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Sénégal bii di Habib Beye nekk consultant ca Canal Plus moom nag officiel na nekk na entraîneur Red Star bi nga xam ne moo fa nekkoon entraîneur par intérim ka fa nekkoon dañ ko dàqoon moom moo fa nekkoon di wëyal liggéey bi bi saison bi jeexee nag la ñu xool ne mën naa yor club boobee jamono jii nag moo ko yor moom mii di Habib Beye kon nañu ko ñaanal kat ci carrière entraîneur mu def ca lu ama am solo ba doxal yor club yu mag ba ci équipe national bu Sénégal sax ndax kat ku xam Habib Beye xam ne yàgg naa xeexal équipe national kon bu yoree équipe national bu Sénégal rek dina ko mën a indil njëriñ ci fàttali club boobee mu yor di Red Star ca troisième division boobee mooy fa meilleur attaque te meilleur buteeru ba foofe sax ci club boobee lay football nekk doomu Sénégal Sénégal di Pape Meissa Ba dugal na 21 buts ci saison bi ñu nekk ñu jugee ci abi Beye jël doomu France bii di Tchouaméni moom nag jënd gi nga xamante ni waa Real de Madrid bëgg nañu koo jënd gone gii di doomu France ba léegi nag officiel agul yëf ya nag léegi dafa tàng jër ndax kat dañuy buuxante ak waa Paris naam gone gi Real de Madrid la tànn te offre ba ko Real de Madrid jox moom neex na ko waaye nag ci ñaari club yi la desee muy Real Madrid ak Monaco ñoom jubóoguñu bëgg gone gi te Kylian Mbappé kat la mu wax waa Paris moo di gone gi kat projet bi ngeen bëgg a tabax fii da caa war a bokk mool plé la ca kon nag fexe leen ba indi ko te ci fàttali Mbappé dafa am baat ca Paris kon nag jamono jii waa Paris la ñu bëgg moo di xëpp ci suuf jox waa Monaco xaalis bu bari ngir mën a jënd doomu France bii di Tchouaméni loolee góol France moo ko xam le ñu jógee ci Tchouaméni jël doomu Belgique bii di Vincent Kompany moom nag moo yoroon Anderlecht waaye jamono jii kat nekkatul entraîneur u club Sénégal yi war nañu koo xam ku ci mel ni Kara Mbodj ak Cheikhou Kouyaté jaar nañu fa football nañu fa def fa ay jaloore moom nag ñu ngi leen doon wax ci bëccëg bi ne ñii di waa Burnley dañ koo bëgg kon nag jamono ji picc moom boppam la kon waa Burnley bu ñu góor góorloo tuuti rek dinañu ko am mu tàggat seen club boobee moom mii di Vincent Kompany nekkatul entraîneur u moom nag su fekkee juboo na ak waa lay bu demee Angleterre dina dem ci réew mu mu miin ndax kat mën sa Manchester City moom mi yàgg na fa lool nekkoon na fa ay capitaine ci ay jamono kon kat bu demee ci réew moomee di réewu Angleterre dina dem ci réew mu mu miin ñu jugee ci Vincent dem ca waa Marseille ñoom nag seen défenseur bii di William Saliba kat dafay jugee li ko waral moo di Arsenal ma leen ko abaloon dañoo gis ne kat gone gii def na saison bu baax moo tax Mikel Arteta may tàggat waa Arsenal la mu xamal njiitu Arsenal ya moo di gone gi kat damaa compter ci moom dem ngeen jëli ko mu ñëw fii ànd ak man liggéey loolee nag tax na Pablo Longoria Marseille jamono ji ma ngay duñ duñi ngir wuti axe central bu ko mën a wuutu foofee moom mii di doomu France loolee l'équipe moo ko xamle ñu jugee ci waa Marseille dem ca waa West nag doomu Angleterre bii di Lingard nekk ca Manchester United mi nga xamante nii kat saison bii ñu nekk bu jeexee tàkk maanaam bu ñu yeggee ci weeru juin contrat day jeex tàkk ca club boobee te gone gi noppiwul ngir yokk ko waa West nag ña ngay duñ duñu ngir naxtaan ko indi ko foofee ci fàttali ñoom xam nañu gone gi bu baax a baax ndax saison bële weesu ñoom la ko Manchester United abaloon mu doxal lool mooy saison deux mille vingt deux mille vingt et un waaye kat ba mu dellu see ca Manchester ak léegi kat doxalul amul sax temps de jeu bu bëri loolee moo tax kat dafa bëgg a wuti club waa West Ham nag ña ngay def lu ñu mën ngir indi ko foofee mu doxal waaye nag wéetuñu ci ndax AC Milan tamit bëgg na ko yóbbu foofee muy doxal loolee Sky Sport moo ko xamle ñu jugee ci Lingard jël beneen doomu Angleterre di góolu ca Southampton Foster mi kat kontaam day jeex tàkk foofee waaye bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano waa Tottenham la ñu bëgg moo di indi ko foofee gratuite nga xamante ni kat dina nekk seen deuxième gool topp ci Hugo Lloris ñoom nag la ñu bëgg moo di ki ñu abboon ca Atalanta di Golini ñi delloo ko waa Atalanta Bergame ngir mën a jël doomu Angleterre boobee mu nekk ci seen ginnaaw capitaine bii di Hugo Lloris nga xamante ni bu sante rek doomu Angleterre bi dina ko mën a wuutu ndax kat Tottenham dafa bëgg a tabax njiitu Tottenham ya la ñu bëgg moo di jëndal ko juróom benn jour yu yees tàq ca club boobee la ñu bëgg moo di kat Ligue des champions ba ñu jëm bu ñu ci demee wane ca fulla ju mat sëkk loole tax na nag dañoo bëgg tabaxaat club boobee ba mu wow kong nga xamante ni Ligue des champions ba ñu jëm ku leen wokk ñu xuri la muy waa Tottenham te jamono jii nag ña ngay defaru ànd ak kaleen di tàggat di Antonio Conte gaa ñi yëf yi foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah